bokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndaax ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot ni leen koy amalee fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi te nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moo di docteur Macoumba Diouf nekk directeur horticulture nekk itam maire bu commune bu Latmingué waaye xam naa rek laata ñuy xuus ci émission bu baax monsieur le maire dinañu xamle bu baax li nga xam ni moom moo jëm ci commune bu Latmingué docteur Macoumba Diouf ñu ngi am mbégte bu yaa di la dalal ci émission gox bi ñu bàyyi la rek rek nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di auditeurs yi auditrices yu Rewmi FM. jërëjëf euh, Dramé maa ngi lay dellu nuyoo di la gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. di nuyu ak di gërëm mboolem kilifay réew mi FM waaye di beral nuyoo aussi seen. Euh, mbokk suñu mbokku sénégalais yi. Mm-hmm. ak mbokku sénégalais yi nga xam ne. bari nañu lool te di leen déglu. Mhm. tey nekk fii ci réew mi. Mhm. waaye amit fu ñu nekk. Mhm. partout. ci bitim réew. monsieur le maire dañ ko bëggoon dooree rek commune bu Latmingué boo nu ko doon faram-fàcceel diñu ko jàngatal defal ñu jeunesse bi euh, mi ngi diggante mi ngi nekk ci digganteek ak kawlak lan nga ñu mën a wax ci commune bi. waa jërëjëf Dramé merci beaucoup d'abord pour euh, soxal bi leen mbiru commune bu Latmingué soxal euh, réew mi juróomi téeméeri commune ñoo fi am ak juróom fukk ak juróom ñaar te fooguma ne di def juróomi téeméeri émission gox bi ak juróom fukk ak juróom ñaar fooguma ko hmm. euh, li ma bugga a foofu mooy xanaa kon soxal bi commune bu Latmingué soxal il faut mu doon euh, teraanga doon cant ci ñun hmm. doon duñu rafetlu et c'est le la ci gërëm jërëjëf sant la ci ci turu hmm. waa commune bu Latmingué yëpp ak ci turu conseil municipal bi nga xam ne maa ko jiite gaa waaye conseil laa rek d'abord comme conseil yi yëpp hmm. kon ci turu samay nawle yi ma seqal conseil bi muy hmm. ñeent fukki doomu Latmingué ak juróom benn hmm. te ñu tànn ma seen biir ma jiite leen maa ngi lay gërëm di wax ni commune bi Latmingué wax nga ko mu nga nekk fële ci Saalum ci région administrative bu ñuy wax région de Kaolack ci département bu ñuy wax département bu Kaolack te mu am fukki commune ak ñeent Lat Mingué bokk ca mu ngi bokk ci arrondissement bu ñuy wax arrondissement bu Koumbal Koumbal benn dëkk la bu bokk ci sama commune man commune Lat Mingué hmm. arrondissement boobu ñeenti commune ñoo ci nekk commune bu ñuy wax Ndofane commune bu ñuy wax Thiaré commune bu ñuy wax Kër Baka ak suñu bos muy commune de Lat hmm. commune boobu mu ngi am juróom-ñetti fukki dëkk ak ñeent maanaam boo jëlee arrondissement bi nga xam ne ñeenti commune la boo ko xaajee ñaar benn xaaj ba suñu commune la ñun rek. waaw kon xam nga ni commune bu yaatu la mm-hmm. mu ngi am ñu ngi xayma nit ñi ci à peu ñeent fukki junni doomu aadama euh, ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñetti kilomètre carré donc muy commune bu yaatu macha allah. Hmm. ñu fay yëngu yëngu yu bari. Hmm. waaye daanaka yëngu yi am ci wàllu koom ci hmm. Sénégal. yëpp am na fa. muy mbéy. moo fa ëpp doole. di càmm am fa doole lool. ci fan juróom-ñetti fukki dëkk ak ñeent fanweeri dëkk ak juróom-benn yëpp ay dëkku sàmm la. ci waxin maanaam. suma euh, euh, euh, cousin pël yi. ñoo fa dëkk. di sama ay mbokk. di sama ay xarit. doon sëy bokk ci sama doole foofu. am na solo. Euh, euh, géej am na fa. Mhm. lu ñuy wax bras de mer le Saloum. Mhm. daanaka dafa topp suñu commune but ba but maanaam fa mu commencé fa mu jeexee kon xam nga ne affaire napp mu ngi fay am. Mhm. affaire xorom bi mooy exploité xorom. di ko defar di ko jaay. am na fa koom yëngu. kon daanaka. loo tax ma ne la yëngu yu ëpp yi siiw gën a siiw ci yëngu. Mhm. àll bi. Mhm. am na fa am na fa kon daal. Mhm. commune bi. Euh, noonu la tëddee noonu la euh, tëddee. bokk ci commune yi nekk ci xolu. Saalum xol bi fi ñuy wax bassin arachidier. tey il faut mu wax la ne lañ fay bay ci gerte. mën naa wax ne presque néew na commune buñ ko fay bay. ci gerte. d' amoon nañ fa usine bu ñuy wax SODEC société de décortiquage de l' arachide. usine bu yàlla nag. temps colon yi la woon mhm. waaye daf lay woon ne rek kon dëkk bu am taarix bu am cosaan la ci wàllu mbéyu surtout ci mbéyum gerte mhm. kon loolu it bëggoon naa ko leeral d'ailleurs mhm. institut de l'arachide boobu ngay dégg mu war a nekk ci université Sine Saalum ci suñu commune la nar nekk Latmingué waaw joxe naa juróom fukki hectare opportunité la ko nar def comme comme institut yi di comme ay ISRA ay mhm. INP. donc mhm. foofu la. na nekk bu bu bu soobee yàlla. ok maire wax nga ko commune bu Latmingué ak ni mu bindoo taarix bi am na ci solo waaye monsieur le maire tey li nga xam ni moom moo tënk ñëpp muy coronavirus ku nekk tey munoo wax ñaari wax te boole woo ko ci mel na ni activité yu bari lompoñ na yow sa commune naka la jëlee mbas mi daal di xeex. ba tey am ci ab résultat bu am solo sa commune. waaw jërëjëf wax nga dëgg euh, laaj bu am solo ngi noonu ndax euh, dañ ne la santé mhm. avant tout. tigi gis nga ne atum deux mille vingt. Mhm. yëpp. Mhm. daanaka yëpp lay wax parce que ñaari fan ci weeru mars. ñaari weer rek. lañ mucc ci corona ci deux mille mais fukki weer yëpp. Mhm. xeex ak dañoo nekk di xeex ak moom ba tey jii. Mhm. gis nga ne lépp lu amoon solo tey. Mhm. daanaka ñàkk pexe rek wala ñàkk mën a toog ca loola rek moo tax ñu nga ca te yëngu bu néew lañ ca yëngu. daanaka dëkk bi dafa taxaw. ci ci waxin daal. kon xam nga wér gu yaram kon wone na ne moo jiitu lépp. kon laaj bi am solo ma bëgg. nit ñi. Mhm. profité ci sa antenne bi. Mhm. pour au delà li ma nar a wax ci commune bu Latmingué. Mhm. ma bëgg a wane ne ñun suñu façon déggin. ci gravité ak solo yi mbir mi rek moo tax ñu def liggéey boobu mën nar a nettali waaye nekkul ne dañ fee gën a jàmbaar wala leneen waaye damaa bëgg a wone ne daal ñun bokk nañ ci ñi bàyyee xel bu baax. cinquante président de la président Macky Sall. Mhm. santaane ministre am. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr ak santaane corps médical bi yëpp. Mhm. kon loolu dañ ko bëgg a utiliser aussi pour mu doon ci ñun buntu fàttali suñu bopp. mais fàttali askan wi ni. xeex corona mooy soxla bu njëkk. moo war a doon tey suñu soxla bu njëkk. ak bu mujj. dama faral wax nit ñi ne gis nga boo tawatee. benn soxla rek nga am. mooy wér loolu mën nañ ca juboo ku wér mooy am soxla ci sama problème bi léegi war naa ko rek la ji koo dégg mu koy wax rek daa wér mais boo wérul benn soxla dong nga am mooy wér te nag fi mu nekk nii réew mi moo feebar ci waxin àdduna sax laay wax moo feebar ndax corona kon nañu suñu benn soxla bu njëkk at bu mujj na doon wér te comme guerre bi mu ngi suñu loxo mais nañ faj nañ faj suñu bopp naka la ñuy fajee suñu bopp sañ sañ sañ sañ Dramé. dañoo wax ni corona amagul garab gu wér gu ñëpp juboo nga xam ne ñaan naan ko nga wér loolu amul ay protocole la nit ñi proposé dégg nga sax scientifique yi. Mhm. débat bi am. ci protocole bi. Mhm. baax na baaxul man nag duma prononcé wu ci loolu. Mhm. mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy. Mhm. lu ñëpp juboo ci wàllu paj amagul. kon damay njëkkee la ma daan wax mooy kon garab gi wér pour corona mooy ñàkk am corona kon mesure barrière ñooy garab gi. mooy takk sa masque. dandante. di raxasu set. Mhm. foo mën a dem te raxasu mënu faa nekk nga fexe am fa gel mu mu mu mu wuutu. Mhm. bi. Mhm. lii de mooy mbir bi. kon loolu maa ngi koy fàttali sama bopp. di ko fàttali sama waa commune. di ko fàttali askanu senegal yëpp appel boobu laa bëggoon a njëkkee. ñaareel bi mu jëm ci appel bi. mooy bu doon taxawee it dañoo bëgg a taxawee nag ñaari tànk. te moo gën a wóor taxawee benn tànk. taxawee benn tànk moo doon xeex mbas mi jaar ko ci mesure barrière baax na. Mhm. waaye léegi am nañ opportunité am nañ beneen tànk muy vaccination muy ñàkku mhm. nga xam ne nag ay la mhm. ku bëgg waxtaan rek ak ku bëgg a divertir divertir mooy vraiment caaxaan loo tànneloo sénégalais yi mooy nekk di débat ci affaire vaccination dinaa ci ñëwaat léegi mais vaccination Dramé mais du lu bees fii affaire poliomyélite xale yi di laago. mu daan jóge ci feebar feebaru ndaw. ndax gisati nga ko fi. wala boog néew na. néew na affaire variole. Hmm. affaire rougeole. ay varicelle. ay feebar yu ni mel. mais léegi lépp la. ak lu bon. d' accord maanaam daanaka xewi na. Hmm. lu ko waral mooy ñàkk. yi ñuy ñàkk. Hmm. parentalité. naa ni sax liir yi. lim bi bëri la su ma juumul juróom-ñaar wala juróom-ñett xamatuma lim bi mais bëri la. Mhm. ah waaw waaw ndax kon ñakk lu bees la fi est-ce que ñàkk. Mhm. lu ñuy jàngal la ñun bu mu am programme national nga xam ne dañ ko institué mu nekk ci ministère de la santé. Mhm. ñu ko waa programme élargi de. vaccination PEV. waaw kon ku nekk ci rajo bi wala ci télé bi wala nga toog fu la neex ci penc yi. di jéem a dute. maanaam jéem a xel yaar wala xel yaar loo nit ñi ci affaire vaccin affaire ñàkk mais foo koy teg sëñ bi ma répété ko ma ne vaccin yooyu ñëpp koy def pour seen xale yi te doom dafa jege way juram lu leen wóor ci vaccin yooyu ñoo ko liggéey wala seen mbokk ñoo ko liggéey population bi laay wax ma ne doom dafa tiis mhm. cher ci way juram lii lañu commencé di ñàkk seen doom yi ñuy jooy yaram bi di tàng ñu boot leen ba ba ñuy dëgër. Mhm. juróom-ñaar xaw ma ñaata vaccin may ndax ñoom ñoo liggéey vaccin yooyu ndax xam nañ fi ñu ko liggéey ak kañ lañ ko liggéey xamuñ ci dara. donc vaccination mooy garab bi loolu nga bëgg a wax. Eh, loolu laa bëgg a wax mais li ma bëgg a wax foofu Dramé mooy. Mhm. kenn amul droit. Mhm. douter. maanaam nga am xel yaar ci ñàkk bi wala nga jëm koo dugal xel yaar ci bopp nit ñi tegoo ko fenn laa wax preuve bi mooy loolu ma la wax mooy vaccin boobu ñëw te suñu docteur yu xarañ ñi saytu ko ba ba li ci ñi ko defar wax am na ci ñoog yi fi nekk ñu ciy ñàkk bés bu ne bu ne laa wax ndax bés bu ne xale ngi juddu kon bés bu ne xale yaa ngi ñàkku ci poste de santé yi. Mhm. ci hôpitaux yi. fii may wax ak yow nii tegal fële corona agum. Mhm. ma ne xale yaa ngi ñàkku laa wax. Mhm. te te seen parents yooyu. xamuñu fu ñàkk bi jógee. xamuñu ku ko liggéey. xamuñ ci dara. te gis te gis nañ ne wàññiwul dara xale yi. kon wóor na waaw ki def loolu muy nguur. moo def lii. kon na leer. kenn amul foo teg. xel yaarloo nit ñi. ci vaccin bii. donc na nit ñi ñekku ci gis nga ne mhm. sa laaj bi olee ma ciy tontu mhm. maa ngi ci appel bi boobu ba léegi mhm. dafa amal solo nag Dramé ma soog a ñëw ak yow ci li ñu def ci suñu commune ñun ñun suñu commune ñu ngi commencé bañ ne mbas mi dugg na mi dugg na li ñu njëkk def mooy sensibilisation fii laa jógee arrêté sama lépp dem toog commune ba ay fan def ay daje ak conseil municipal def daje ak boroom dëkku yi juróom ñeent ñetti fukki ak ñeent moo woo leen wax ak ñoom def déclaration mm-hmm. ci rajo bi ñu koy teg xaw na jege ñaari weer foofu ca rajo yi Kaolack yëpp nag laa wax li may wax nii mm-hmm. waa Kaolack yu nekk Dakar ak feneen ndax naa ne fépp lañ leen di dégloo mm-hmm. mën nañu attester li ma wax ndax dafa mujj déclaration boobu da doon booy nopp yi jëluma benn rajo de wala ñaar rajo yi nekk Kaolack commune. yëpp mhm. laa def déclaration bi déposé ko fa. Mhm. ñu koy teg en boucle. Mhm. loolu mooy sensibilisation bi yemuma ci de. caravane ma jël quelques jeunes ndax comme mbas mi la ajuloon mbooloo mu bari. teg leen ci L200. ak sonorisation. wër warloo leen commune bi. muy ñett. ñeent ma jël ay gel. dem ci mooy temps yi wax affaire jàkka yi. Mhm. borom dëkk bu nekk. Mhm. ma jox la ay gel pour parce que fa la nit di ñëw. dëgg jàkka bu nekk. Mhm. ma def fa ay gel yow ma ci. ma dugg ci daara yi. joxe fa ay gel. joxe fa ay masque ci ci ci daara yi. dugg ci école yi. école bu nekk. am na lave-mains am na ay saabu ak i madaar liquide. mooy bi ñu waxee ne. na ñu reprendre mhm. ñi def classe d'examen yi mhm. ñëw ñi des toog mhm. ma dote leen ku nekk déglu bu baax de ku nekk ci ñi reprendre ma jox la ñaari mask yu ñuy fóot élèves yëpp personnel administratif bi ak seeni prof ma jox leen ku nekk ñetti mask ci ñooñu reprendre woon jeexul école di ubbi ma laajte ñaata élève élémentaire nekk ci commune ba. ak secondaire. Mhm. parce que am nañ ay CM. am nañ lycée ñaari lycée mixte. Mhm. am na ñetti CM. am nañ trente une ou trente trois écoles élémentaires. Mhm. ma laaj lim boobu yëpp ñu ma li ko manqué sept mille tuuti la six mille et quelque ma jox leen sept mille masques. lavables loolu mooy ku nekk. di école di ubbi ren. am nga masque buñ mën a fóot. comme école yi amoon na. ay lave-mains ma dool leen ay euh, produits. kon loolu def naa. mooy. Mhm. ñun dañoo gisoon ni. Mhm. anticipation bi. prévention bi. Mhm. mooy dëgg-dëgg garab gi. moo tax ma def loolu lépp. te loolu moo xam ne la ca ëpp. samay moyen bopp. ak moyens yi samay partenaire dimbalee moom laa fa yóbbu ndax xam nga suñu commune yu néew doole yooyu mooy commune yu bees yi amul niveau de recette. exactement mais bien que euh, président defaloon nañu lu ñuy wax ordonnance bu ñu mayoon budget daaw bi. Mhm. ñu am lu ñu jëlee ci suñu fonctionnement. dugal ko ci euh, produit d'hygiène ak masque lu xeex. Mhm. mbas bi mais bu ñu la ko mayee it. Mhm. te amuloo ci fonctionnement sax lu sakkan. kon doo am lu sakkan loo yóbbu ci xeexu mbas mi. sax na ngeen di wàllu. donc. ay na yéen ñu taxaw ci def loolu yëpp ma la wax. yemuñ ci deuxième vague bi ñu ko tuddee. ñu dañoo daal di. beesal. Mhm. sensibilisation boobu. Mhm. communiqué euh, en fait déclaration boobu ma defoon. Mhm. ca njëlbeen ba dama koo defaat fi may wax ak yow nii arrêté gul. da léegi boo laajee waa Kaolack ñu ngi déglu. communiqué yi. waxaat soññ gi. waxaat gravité bi. wax matuwaay yi ñu war a jël. après nag jël benn initiative un administré. un masque. parce que maa ko initié sama commune. xam nga tey yow Dramé yow xam nga ni. Hmm. takkuma masque parce que aw ma masque yow wóor na ne lay boobu taxaw. taxaw <laughs> ndax léegi yomb na moom. mais dama doon bañ lay boobu sax am ñu ko génne man fi woon wu. Hmm. pour dem ci mbir mi. dañu bañ sax nga bañ a am lay léegi ma ne. Hmm. quarante mille personnes xanaa am na ci cinq millions am ne. ñu ngi am diggante benn at ba juróomi at. wala ñeenti at. Hmm. xam nga boromam mën na ko takkal masque parce que mën na mën na koo fat. Hmm. mën na koo maanaam ñi tuuti ñi amuloo maîtrise ci takkal leen masque. Hmm. c' est même pas prudent. na leen plutôt seen waajur. takk masque bo pare te téye leen. boo génnee ñooñu des na au moins trente cinq mille personnes ma wut trente cinq mille masques fi may wax ak yow amul dëkk. ah kay des na def naa ci distribution bi fi ñu yeggagul. paasewul ay cinq ou six dëkk autour de Latmingué ci quatre-vingt-quatre yi mhm. dëkk bu nekk dañuy dugg séddale ba attesté ne ñëpp jot nañ mhm. yaa ngi dégg wax maanaam ñëpp ku nekk am nga sa masque mhm. ñu soo génn dëkk ba dem man mi maa commandé joxe ko léegi nag loolu mooy opération bi ma mujj def bi ma bi taxaw nii nag moo jëm ci affaire kon xam nga wax naa la li jëm ci sensibilisation. ak jàppale ñi ñi ci mun a wàcc ci mun a wàccoog mesure barrière xam nga wax naa la. Mm-hmm. ma soog a ñëw nag ci vaccination bi. Mm-hmm. vaccination bi ñu ngi koy soog a euh, door. ci mm-hmm. Sénégal. ma profite ci pour jaajëfal. président de la République ati. dama ne ati parce que ku ne gis nga saytu bi mu saytu woon mbir mi depuis bi mu duggee ci réew mi mu may ñu. ba tey ñu ngi jàmbat tolluwaay bi tey. Mhm. comme réew yu bari. Mhm. waaye man li ma gëm mooy. président bu réussir loolu gestion bu njëkk ba heure bi mara taali leneen la ñuy wax man loolu laa gëm man kon gestion bu njëkk ba. Mhm. première vague ba. ba mu réussiroon ba nekk deuxième ci biir adduna bi. moo tax tey ñu mën a ndar képp mbir mi ba am fu mu yeggagul. bien que garaaw na mais mënoon na fee gën a kon dama koy jaajëfal. ngir loolu beneen bi jaajëfal beneen jaajëfal bi mooy lan. mooy vraiment leadership am maanaam le fait mu jiitu sànni karawaas jiitu gaañi. nekk ci kanam ministre moo ko njëkk a ñàkku. waaw mais très bien benn la rek benn la rek te euh, boo seetee priorité yi ministre moo gën a nekk au front parce que priorité dañ ne. na doon le corps médical de première ligne. man ca laa boole ministre bi d' mm-hmm. ak ñaan ñu ne ñi nga xam ne seen at. ëpp na mhm. juróom-benn fukki at ñu ne ak ñaan ñu ñi nga xam ne am nañu fukki at ak juróom-ñeent mhm. ak lu ko mhm. te am ay jàngoro ay jàngoro chronique yoo nga xam ne moom la mbas mi di bañ boo ko amee bu ci duggee daanaka yomb na mu mu mu mu faagaagal la ñii ñu wax kon ministre bi mu ngi ci catégorie léegi li xaw a lëndëmal ah, xelu askan wi ba njiitu réew ba mu ñàkk ko ba pare ne askan wi yéen ba ngeen ñàkkuwul naa jël masque yi ko leen Sénégalais yu bari nag di duti ci lool. non non dama ne ma ma ma ma ma ma bul xajamal gi ma bëgg a jeexal cant président de la république euh, ma ma ma ma ma ma dama ne. àdduna yëpp. Mhm. xam nañ ne am na réew développé sax yoo nga xam ne. am nañu jafe-jafe. Euh, peut-être ci vaccin. Mhm. vaccin bi lii nag. Mhm. ay la yeneen dëgg pire la. yow comme journaliste nga. xam nga dara ci li may wax. nga dugg biir Afrique mm-hmm. juróom fukki dëkk lañu ak ñett mm-hmm. ci juróom benn dëkk yi njëkk a jot vaccin ci Afrique mm-hmm. Sénégal ci la bokk loolu ak góorgóorlu moo ko indi loolu ci jarul sax ma ci sori ku ne xam nga ne loolu tëdd nelaw may ko kenn kon leadership boobu mu àndal maanaam njiit lu wér lu taxaw lu am solo li mu doon ba tax mu gérer feebar bi ba jël deuxième ci Sénégal ci àdduna gérer ko xeex ba bokk ci njëkk a am deux cent mille doses ba nga xam ne ñi war nekk au mhm. pour war a jàkkaarloog feebar bi ñi ci jiitu incha allah dinañ am seen kaaraange. Mhm. à partir de maintenant waaye waaye il faut ñu gërëmoon président de la république. Mhm. ko ci loolu. kon bi muy joxe. kii bi euh, waxin bi da ngay yëg ni kii xeex xeex bi mu xeex. ak xeexin ba mhm. ak dimbale sénégalais yi ba xeex bi méttee ci dund mhm. dimbale entreprise yi nga xam ne daanaka bu doon loolu ñu nërmeelu mhm. maanaam catégorie socio professionnelle yëpp mu jënd junniy milliards dimbale leen wuti ay garab ak i respiratoire dooleel système de santé bi waaye waaye kooku bu la nee. Hmm. boo jëlul xeex ba am deux cent mille doses. Hmm. jënd ay frigo xaw ma un millier xaw yoo nga xam ne dafa seer mooy fi ñu war a denc vaccin yi. Hmm. jàppale professeur Seydi. ba euh, centre des maladies infectieuses. mu yeggale ko. équipé ko waaye waaye kooku commandé presque sept millions de doses encore yow nga xam ne fii ak avril incha allah ci ay phase yu bari dina ñëw ci réew mi pour que bu doon ñaari sénégalais ñoo am Sénégal kenn ki vacciné wu nous sommes seize millions huit millions mën a ñàkku Dramé kii def loolu ma ne kii def loolu mhm. bu la boo jëlul vaccin yi mhm. ma may ji ko feneen. Mhm. ci yeneen réew yu ko soxla. Mhm. xam nga ne kooku pour man. Mhm. sentiment de yërmande. laa am plutôt ci moom plutôt ko di jéem a lu ñu leen ci wax jooju. ma ñu ñu dégg wax ji dama ne. boromam dama koo yërëm. man bi ma déggee kàddu di sama yaram def ci daw ndax nag dara amee. xëy na soose nga. jaaxanke xëy nga waaye yàgg nga ci milieu wolof wax jooju war ngaa xam li mu tekki. mooy waxu. ku ko très bien. waxu ku ku ku sonn. waxu ku ku jaaxle. waxu ku bugg a ndax li mu def yëpp pour yow ak man ak suñu morom. Mhm. pour mbas mi duñu sonal ñu rek. ci mesure barrière yi mm-hmm. yaa ngi gis fii ñu interviewé ay nit ñu naan affaire bi amul. bari ñu def ko mm-hmm. ci vaccin yi. Mm-hmm. jot ko ñëpp di gis maanaam ay mandarga yu wér ne. mbas maa ngi fi mu ngi yóbbu nit ñi. te lu garaaw mu ci def effort yooyu yëpp te mu indi vaccin nga xam ne à part mesure barrière yi war a jàppale nit ñi bëgg am kuy dutee. waxu ku découragé mhm. waxu ku ñu war a ñeewent mhm. la war a doon mhm. kon dama bëgg sénégalais yi ñu déglu wax jooju te jox ko sens bi ma ko jox ndax ndax dama gëm ne sens dëgg-dëgg boobu la am ki def loolu pour yow pour nga mucc bu la ne boo ko jëlul ma maye mooy sës waxu ku sës la te nag waruñu ñu président de la république corps médical bi ba foofu. mooy ñu dem ba malgré sacrifice yi def ak coono yi ñuy ñu dem ba bëgg a yokkat ndax comportement wu sénégalais yi. loolu amuñ ci droit ni mu amulee droit moom président danger di song réewam amul droit mu toog mais kon moom wàcc na def na li mu waroon def kon ñun sénégalais tamit. nañu def li ñu war a def mooy nañu jël vaccin bi kon moo tax man ko incha allah dimanche le vingt huit février dinaa def lancement campagne vaccination contre covid ci sama commune dinaa ñekku soobee suñu borom mhm. dinaa fàttali askan wi nii mhm. non seulement nañu ñekku mhm. mais sans réfléchir pare nga pour mën a sensibiliser. ah tout à fait. Mhm. non seulement amuñu sensibilisation boobu. Mhm. mais pare naa pour que vaccin yooyu bu ñëwee. Mhm. nga xam ne moo war a dem ci population yi. nombre bi ci seen population war a am. man pare naa pour ànd ak chef de poste yi. relais communautaire yi. ñu def caravane. di ñàkk. xëy sama liggéey fii du ma may. ma def ko de manière continue mhm. mais mën naa ko def de manière saccadée su ma demee tey ak suba mhm. dellu sama liggéey ginnaaw suba ma dellu def jaral jaral na ma ko pour que mhm. nit ñi di di di di kon daal uh-huh. dinaa la dinaa ñàkku dinaa lancer boobu te dinaa ci profiter comme affaire santé ku ko wax wax lu jëm ci logistique lu mel ni dinañ ci ñëw dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat mbokk yi yéen a ngi ci seen émission Rewmi FM ci émission gox bi tey nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di docteur Macoumba Diouf nekk maire bu Latmingué ba tey rek di wax ci commune bi euh, monsieur le maire commune bi nga jiite am na solo ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo itam am na solo ci wàllum activité li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum paj mi ñu continuer ci siège boobu rek li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum district yi ndax am na taxawaay ba ca war ba nga xam ni yéen yéen a ngi koy def ci wàllu commune ba. tout à fait parce que man dama jàpp ne wérgu yaram moo jiitu lépp. Mhm. donc bi ma ñëwee dama constaté ni d'abord commune bi amuloon benn. ambulance. Mhm. ma gis ni comme amuñu centre de santé. Mhm. am ay docteur am personnel bu doy d'un certain niveau de qualification. Mhm. kon évacuation dinañu yomb. mooy vers Kaolack commune. hôpital El Hadj Ibrahima Niass. wala vers Dakar. ma indi fa ñaari ambulance benn bi maa ko jënd. comme bii ma war a joxee suba. Mhm. boobu aussi maa jënd. beneen bi croix rouge ñoo ma ko mayoon. ma yóbbu ko ci poste de santé bu ñuy wax kër Ali mhm. ak poste de santé bu la nekk. toppatoo beneen ambulance. Mhm. mu yàgg port ay affaire u exonération ba ñoom ñu ne ma dañ koo mujj jaay. waaye ñu ngi ci ay pexe pour quand delloo ñu suñu ambulance parce que quand mhm. euh, commune yu góorgóorlu yi mhm. rawatina mu jógee ci poosu benn doomu commune ba muy maire bi mhm. amuñu droit mu yàgg fa ñu jaay ko di ko surtout yàgg ba it ci kër yi rek la tardé xam nga jënd ambulance moo gën a jafe dox ci lu ko génne wala donc jënd ko moo gën a jafe tigi kon maanaam du du du du si suñu responsabilité daal. Mhm. laa bëgg a wax. Mhm. finalement wutaat naa beneen ba ñëw na ba génn na moom laa joxe. Mhm. Euh, suba kon xam nga tey bu ambulance boobu tey quatre postes de santé lañ am. bu doon boobu ma njëkkoon a yéegee. génn na tey fekk si bi mujj nii. kon quatre postes quatre ambulances lañu am. day daj. kon ci bilan su ma un poste une ambulance ci sama bilan. kenn mënu ko dindi. loolu nag defe naa. Hmm. la. Hmm. ci commune bu amuloon benn ambulance. ñaar bi personnel de santé bi. Hmm. liggéey naa ba sécuriser yenn yi. surtout wàllu profil euh, du mel ni sage-femme. yu mel ni surtout relais yi tamit. ak matron naa leen defee mooy dañ leen a motiver. maanaam li ñuy am par weer. dañ euh, yokk bu baax. ba nga xam ne. xëy na doyul ba mel ni salaire. Mhm. waaye tey ñoom gën nañoo am euh, euh, euh, engagement. Mhm. ak cawarte ci continuer liggéey bi. Mhm. loolu def nañ ko produit médicament yi ñuy jàppale. post yi ak case de santé yi. dañoo ful budget bi presque par trois. produit d'hygiène. mooy li ñuy nettoyer aussi. poste yi hmm. naka noonu hmm. recruter ay nit waaw hmm. kon xam nga ne euh, secteur di appuyer bien aussi les campagnes de vaccination j'allais oublier personnellement di appuyer campagne de vaccination nga xam ne lay ñooy wër biir commune bi di def kon xam nga ne reproché ñu dara du yomb parce que xaw ma lu muy doon. Mhm. jeexul bi Covid bi ñëwee man dama def benn salle Covid dama ko aménagé ci poste de santé bi. Mhm. nga xam ne ku ñu njort loolu. Mhm. wala ku ñu wax ne am nga ko rek. ñu dugal la ci salle moom moom foofu lañ moom lañ fay pour bañ a exposer. yeneen yeneen malade. ak personnel yow ma ci am naa benn poste de santé bu bees. yaa ko ci sa fond non ci sama leadership lay wax. ci sama dox. Mhm. ak. pexe très bien samay pexe. Mhm. ndax nguur gi moo ko jox. Mhm. à travers le PADES. mooy le projet d'appui au développement économique et social du Sénégal. c'est l'occasion de féliciter le président de la République. coordinatrice bi mu ngi tudd <coughs> madame madame madame Ayouba Diop. donc poste bi daanaka pare na. kon xam nga ne. def lu ëpp loolu foofu du du du yomb dañ kon bilan santé bi. Mhm. mu ngi noonu. ci wàllum lekkool bi nag. may la bu ñu ko toppee. Mhm. fii la ñuy yendu ndax ci préscolaire laa jógee ci tout tànk yi ba université tout tànk yi. Mhm. personnel laa recruté déjà ci ci maire bi. def leen fa. kon xam nga léegi ku toppatoo xale yi am na équipement ya ñoom ñi ministère ni en tout cas amul budget yi am. ñuy jotee sax. Hmm. sama moyen bopp. Hmm. joué maanaam équipement wu bi daal. Hmm. maa ko def. lu ñu xewle. man maa koy jël en charge. programme bu ñu am. ak xale man mi maa koy financé. donc. kooku mooy cadre des tout-petits. nga ñëw élémentaire. gratuité des fournitures. waaw. man wax xale dañuy am fourniture ba mu des. kaye. ardoise bi xam nga daan en tout cas liste bi nga xam ne moom la ma collègue yi. Mhm. mooy collectif directeur di ko jox di jox. Mhm. dama koy satisfaire entièrement. benn parent du génne dërëm. déedéet pour fourniture. Mhm. nga dem ci seen. xam nga bokkul ci man. Ah, bokkul ci compétence su mairie voilà euh, conseil départemental moo moo ko war euh, ak lycée. dama fay joxe ay fascicule dama fay joxe ay photocopieuse mhm. salle informatique matériel sportif nii xaw ma brevet sportif mooy matériel éducation physique et waaw donc mhm. loolu yaa ngi appuyé loo xam ne du sa compétence exactement mais dama ci seet rek mooy ay doomu Lat Mbengue lañu mhm. ah kenn de kenn ci kër gi dem seem même kër gi kenn jógee fa dem presque ñu naan xale génn fii dem école élémentaire. Mhm. mais man mënu def différence entre ñetti xale yooyu ñoom ñëpp sama njaboot lañ. Mhm. loolu laay def examen bu jotee. Mhm. ma jël leen en charge ñoom ñëpp xam nga ñun naa a commune bi dafa yaatu. on a quatre vingt quatre xam boo jógee ci beneen dëkk di ñëw di dox ay kilomètres di def si examen. coono boobu rek mën na échoué loo xale bi. mën nañu dëkkaat yi ci kër ku mel ma kumba nga xam ne loxoom jotul ginnaawam. condition yoo fay nekkee. du demee noonu. Mm-hmm. mën na influer ci say performance mën nga échouer. Mm-hmm. ma ne loolu yëpp léegi dañ koy kii. Mm-hmm. examen jotee ñu toogal leen ndekki añ jour bu nekk. ba examen bi jeex ñoom ak seeni personnel d'encadrement. nga xam ne ku génn ci école bi dem feneen yow la neex ndax añ bi lycée la leen di fekk ci centre bi. fa la añee. lépp en charge. exact donc euh, loolu mooy pour élèves yi bu ñu. demee ba war a inscrire. Mhm. pour ñu orienter leen. Mhm. dama benn journée. mooy plateforme boobu la fàttali nu mu tudd. campus seen xam ma. waaw campus seen euh, daa am daa am fu ñu leen di mhm. ñaari site benn bi la mengee la benn dëkk bu ñuy wax Kumbal. ñu daje fa ñoom ñëpp ñu bindu. ci connexion. dañuy soxla ci ay xewal pour yenn fa def loolu. ñu nekk dans des conditions optimales. pour ñoom le même jour. te jaajëf ma jaajëfal aussi seen mag ñi nekk ci université. ndax bu boobaa kii mooy Malamine Fall. Ah, très bien <laughs> eh, seen mag ñi nekk université. Mhm. ñooy def benn groupe benn caravane. Mhm. ñëw fa gindi leen ci loolu wan leen ni ñu koy defee. Mhm. fi muy terminé. Euh, mooy subvention. mosu fa am. Ah avant même déedéet zéro franc la woon léegi ñu ngi ci sept million cinq cent mille par an waaw waaw maanaam fekk mu fa dara ci subvention mosul am dara. mel ni. yaa ko initié waaw. maa ngi commencé deux millions cinq cent. Mhm. première année. ren maa ngi ci sept millions cinq cent. Mhm. kon at bu nekk dama koy yokk. kon étudiants yi am nañ waay am nañ wéeruwaay mhm. te loolu bokkul ak li ma leen di jàppale sama bopp man. na leer loolu nag du ma ko tudd. la. voilà mm-hmm. mais bokkul ak sama jàppalek bopp mm-hmm. bokkul ak xale yi nga xam ne ñu ngi ci ay école de formation mm-hmm. te man maa leen di fayal ñuy jàng donc boo gisee loolu dama jàpp ne pour que gox ba émerger bu ñu am let ma nga émergent comme ni ñuy wax Sénégal émergent il faut que docteur Mokumba yi ci waxin yi aw ma solo gaa mais il faut ñu ñàkk solo ñi man bari fa lool kon buñ dee xanaa lat méng émergent infrastructure ya ñoŋ na. Euh, mais très bien kon xam nga wax naa la ci capital humain. Mhm. li ma def. Mhm. résultat bi mooy ren. Mhm. non ñu ñoo jël paie ci bac ci suñu. département centre ba. ñu ñoo jël paie lii si lat méng ci résultat. yaa yaa ngi gis investissement bi. toog naa salle conseil. kon li nga si parce que as ñaar ñoo ma ko njëkk a fàttali ñoo ma ne. sa charge ak sa coono nag dina gën a bëri waaye sa liggéey moo la sonal. ndax bi ngay jot mairie bi. 2014 am na yoo xam ne dañ ma ne xaw ma CM2 lañ ne ko xaw ma fan ne mu ne ma. mu ne ma ñoo ñoo am bag nii de toog naa ab wax ma ko. ne ma nag ñi nga doon jàppale. pour ñu gën a mën a góorgóorlu résultat yaa ngi nii de waaye di nga ay dans toutes les universités du Sénégal. on a une colonie d' fils de Latmingué te ci investissement yooyu. la la la jógee kon. gis nga ne capital humain man gëm naa ko. te loolu c' est euh, une option prioritaire. Euh, ak kii euh, pour pour pour politique gu plan Sénégal émergent. capital humain élément prioritaire la ci. donc maa ngi doon wax ni. pare ci capital humain bi. voilà. Euh, capital humain. Mhm. orientation la axe prioritaire la. Mhm. ci plan Sénégal émergent. Mhm. président yëkkati ko. kon gis nga ni it. léegi jëmmal ko góorgóorlu laa ci. santé wax naa ko compétence transférée gis nga ko infrastructure man maa njëkk a indi tali. tali naa wax nag. waxuma latérite. <laughs> bu ñu peinture goudron. bu ñuul kooku. Eh, dama ne parce que dégg ko. jàpp gémmiñam naan ah bon kii moo ñeme yàlla man <laughs> tali route goudronné mhm. double xaw ma triple couche mhm. dëgg-dëgg tali daal mhm. cawandu mooy croisement bi jógee ci route nationale bi ba ca biir commune ba man maa ko fa njëkk a indi ma faa la fa amoon mooy latérite bu ñu peinture loolu benn de maanaam nga def rangam xam nga suuf xonq la. Mhm. nga jël goudron ama ndox la. nga def ko ci. Mhm. mu ñuul am ay kàmb yoo nga xam ne nii d'autruche la. pas nii de poule mais nii d'autruche kàmb yoo xam ne <laughs> bu ca mbémbaa duggee ak otoom balaa génn il faut ñu langi kaw moo fa amoon loolu laa fa fekk. Mhm. dama falu rek président ma fa tali boo xam ne mu ngi jar presque milliard bu manqué fanweeru million. huit cent cinquante millions la jar. un milliard bu manqué cent cinquante millions. yemu ci mu indil ma pour presque trois cent cinquante million benn piste mooy Lat Menge <laughs> ci Cap Jéeri yemu ci fi mu nekkee inscrire na ma Lat Menge kër Ali Bassine dix-sept kilomètres dafa yàqu agirut ñu ngi koy waaj a defar ak piste Lat Menge dàgga yu noonu ko defar xam nga ne boo jëlee ni ñu toll ci ay commune ci réew mi. Hmm. ak poosu réew mi ni mu néewee doole. Hmm. boo ca amee loolu bu munoo weddi ne lu rëy donc loolu am na ko électrification. Hmm. xam nga ne courant mooy base du développement. boo ko amagul waajagul loo développé parce que courant luy indi développement rek day utiliser courant. ñetti dëkk laa fekk ñu am. courant ci lat ménge ret menge dëkk bu ñuy wax sangil mhm. dëkk bu ñuy wax kumbal ci juróom-ñetti fukki dëkk ak ñeent mhm. fa mu nekk nii am nañu fanweer ak ñett kon diggante mille neuf cent soixante mhm. ba deux mille quatorze li fa liñ fa def man li ma ko def fu na ko ful na ko dix fois ça def naa fukki yoon ak yu teg liñ fa defoon avant may jot ci mairie bi te du ma leen ci sama poste la jógee parce que mënu ma loolu du ma leen ci maire bi la jógee parce que maire bi amul xaalis boobu mais sama leadership le fait que ki nekk ci bopp commune mu ngi tudd Makumba sant Diouf mhm. amul solo ga waaye ku nekk solo googu nekkam foofu moo yombal mhm. yu bari yu bari kon kooku muy noonu ndox nag moom mhm. li ñuy wax accès universel moom laa réalisé amul benn dëkk moo xam ko tey ci juróom-ñetti fukki ak ñeent bu la mën a wax ne ñun amuñu ndox amut. kon gaañ ñi la fa. dëkk yëpp am nañu ndox li nga mën a wax kay. Mhm. mooy man awma ko sama kër. te xam man du ma digee ak nit ñi <laughs> am na ñu bëri ñu ma ñu ma ci jàppale nag. ñu mhm. jógee ci sama poche bii. Mhm. bari na de mais mënu maa digee ak nit ñi nag ne ñi mënta am ndox ci seen kër yëpp. naa leen xëccal ndox. loolu kay mënuma ko de lu leer lay wax mais dama ne point doo mhm. foo mën a jëlee dugal sa am na ci dëkk yëpp donc mhm. boo bokk boo jokkul ci forage bi rek nga jokk ci beneen forage beneen ko ba am nañu presque ñeenti forage matale na donc mhm. jot ci ndox mi moom dëkk par dëkk waaw matale na accès universel à ci man la mbéy mi mhm. du compétence transférée mais li ma ci def rus naa ko ndax sama participation personnelle mhm. ci jiw ci engrais ci tàggat leen ci jàppale groupement jigéen ñi li ñuy wax GPF yi mhm. jeunes yi financement aussi ñoom ñoo ci des xaaroo kenn euh, non financement négocié naa ba GIE ba ID bio benn privé la nu mu tuddati euh, euh, FONGIP. Mhm. bientôt pour dix millions. Mhm. non sax de maanaam dix millions pour cinquante millions. Mhm. ñu mën a jot ci financement yooyu. liggéey seen bopp. am dara te fay seen bopp. kon financement yi. def naa ci effort kon maanaam su ma la déggee commune bu Latmingué mi ngi ci yoonu émergence. waaw loolu moom boo ko waxee doo juum. waaw émergence bu ab dëkk la. Hmm. yoon wa fa jëm ñoo ngi ci kawam te tali nañ ko. Hmm. tali bu yaatu. Hmm. deux voies. wala deux fois deux voies. autoroute li ma bëgg misaal foofu mooy xam nga mën nga faa xëlu. moo tax ñu ngi xëlu. te incha ñu ngi seen dëkk boobu tudd émergence yàggaguñ ca nag. Mhm. yéen yoon bi waaye yoon wi. Mhm. ñu ngi ci yoon wi yaatu na baax na. Mhm. ñu ngeeg oto bu baax. te fi ñu nekk kenn terewu fa xëlu. kon xanaa bu àndeek coobare yi suñu borom. yàlla mën na dogal ñu yegg ci dëkk boobu ñuy wax émergence. alors euh, monsieur le maire lu ñu cëral ci ay waxtu xëy na ba néew na mu ngi bëgg a jeex ngir jeexal rek ci li nga xam ne daal léegi tey li ngay junj nii yëpp docteur Macoumba Diouf maire bu commune bu lat Latmingué kon dañ jàpp ni bilan gu am solo mi ngi fa ndax nekkoo di yóotuwaat itam beneen mandat ngir eggal yi chantier yi nga xam ni moom nga euh, tàmbali. waaw xam naa ne sa émission bi sa gàtt na ci def bilan ndax social. Euh, euh, ci li ci li ci li ma def la mais yokk social moom dama koy tudd ñu dégg ko rek. Mhm. mais la mu doon euh, waxuma man ndax man xalaatuma koo tudd. Mhm. waaye su ma sañoon ñu ko am sax. Mhm. du ñu ko tudd. mais mën naa la wax ni. bokk ci sama plus grande satisfaction. sociale waaw waaw. maanaam nag mooy bilan boo xam ne. warul man bëgguma mu feeñ en tout cas. Mhm. mais li nëbb. Mhm. ci sama bilan mooy li ma gën a neex ci sama bilan man. te man xalaatuma ko feeñal waaye ñoom seen borom toujours dama leen di wax bu ñu ko feeñal. Mhm. loolu il faut que ma wax la ko nga dégg ko li ko waral nag c'est lié à la personne man. je me plais à faire plaisir. cest à man lii naatal sama xol. di dundal sama ruux. mooy def mbir. mu war ma ne am na wala am na ñu ci am na ku ci wala am na ñu ci kontaan ma def ko am ñoo xam ne fa ñu toll seen xol sedd na ca guy man loolu mooy seddal sama xol. Mhm. moo de social dafa bokk ci man. Mhm. ku nekk xam nga yaa xam li lay jox satisfaction kon loolu. Mhm. mënuma <coughs> mënuma ko ñàkk a loolu it. Euh, di di ko wax. Eh, yoonu émergence boobu ñu jëm. Mhm. mu wër ma ne léegi tegu nañ ci yoon wi. yoon wi baax na am nañ daamaar bu baax. Mhm. fi ñu toll façon télé bi ñu topp. Mhm. kenn terewu fa xëlu. ma jàpp ne bu ñu xoloo mu ànd ak ndimbalal suñu borom mi ñu dimbale bu ñu def li ñu jot def nii. mu bari lool ci nit ñi te ñun ñu xeeb ko lool. bu ànd suñu borom ndimbalu suñu boroom boobu. daañu ci te yegg. waral ma jàpp ni. damaa war a continuer liggéey bi. maanaam da ngay présenté wu waat. waaw bëgguma ko noonu sax. Hmm. parce que boo day mel ni man maa bëgg. parce que tey li gën a jafe. Hmm. mooy fexe bu ma doon candidat. loolu gën a jafe ma jot ci maire bi bu ñu fi yàlla hmm. ak bakkan. tere maa doon candidat moo gën a yomb. nekk candidat. non tere tere ma ma doon candidat. moo war a gën a yomb tere ma ma jot ci maire bi. maanaam li ma bëgg wax foofu. Mhm. mooy nekk candidat moo tere ma jot ci mairie bi. ok li ma tax ma teg ko nag mooy. Mhm. aspiration wu mhm. ña fa nekk la. tey boo ñëwoon di ma jéem a convaincre. ma bañ nekk candidat. doo am affaire ak man population nag ngay amal affaire parce que pancarte dina bari. te bu ñu la rawalewul boo muyul. dootuloo ko nettali. daal mooy. c'est plutôt une attente. ou une doléance des populations. kon xam nga loolu lu leer la. Mhm. kon nangul naa leen. Mhm. continuer liggéey boobu. Mhm. kon ñu élection bu doon suba suba suba suba suba. ñun non seulement on est prêt. mais dox vraiment doxantu lay doon. monsieur le maire ñi nekk foofu ñoom xanaa duñu ay euh, euh, nekk nu ay responsable yi itam di militaire da nga jàpp ne yow romb jéegi lay doon. mais man nee naa doxantu lay doon est-ce que am na ñu fa ne sax parce que foofu man vraiment yëgu ne am na ku fa ne. parce que man ni may yëgee ne am na ku non vraiment gisuma ko. honnêtement grand parti mi ngi fa de. gisuma ko ah mais laaj leen yow yaa ko yëg xëy na yow comme nitu presse nga. ci site yi nga ko yëgee wala ci journaux yi wala ci man ni may yëgee. Mhm. nekku opposition. Mhm. ci sama commune. Mhm. mooy une présence physique. ak ay action maanaam teewaay. ak ay yëngatu. je ak ay yëngatu. yu wax ne. diw mi diw mu ngay yëngu fële. te gisoo ko. loolu déedéet amu fa. kon daal foofu daal. Eh, ku ko bëggoon a def mhm. lii ma la nettali nii. Mhm. te xeeb ko lool. Mhm. moo tax balaa nga koo def di ko seet ñaari yoon <laughs> ndax asaaloo sa sa astuut. maa ngi lay yor dégg nga wax ji ku <laughs> ko seetaat. am na fi ñu jëm ak condition yi nar a teg. asaaloo sa astuut. xëj na ci. <laughs> am na solo monsieur le maire waxtu bu ñu cërale woon euh, jeex na ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci sa disponibilité ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo di mbokk auditeurs yi. jërëjëf Dramé vraiment ginnaaw gërëm la yow ak waa réew mi euh, kilifa yi organe bi ak ñi leen di déglu. Mhm. te bari lool macha allah. Mhm. à man ngërmaane boobu. Mhm. tàggatoo bi yëpp tàggatoo. fàttali lay doon rek. Mhm. la ma njëkk woon rek laay mujjee. Mhm. mooy balaa ngaa naan naam da fay nekk. mooy ku am soxla. Mhm. day fekk nga wér. mais boo wérul benn soxla ngay am mooy nga wér. am na ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. jërë ngeen jëf. Ah, di ko sant di ko gërëm bu baax a baax mbokk yi tey li nga xam ne moo jëm ci émission gox bi ñu si doon dalal rek docteur Macoumba Diouf nekk maire bu Latmingué mbokk yi sant leen gërëm leen encore gërëm ki nga xam ni moom moo di Adama Diallo moom mi nga xam ne moo nekkoon ci xarale gi ñu jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité.